nee na mbirum njiital Pastef Ousmane Sonko jamono ji gisatuñ lenn loo xam ne mën na koo gàllankoor ba mënul bokkoo ci ñi ngi jongante réewum Sénégal atum 2024 lépp solo mooy njiital Pastef Ousmane Sonko jamono ji ñuy àddu ngeen di diglu gisuñu dara loo xam ne mën na koo tee mu nekk candidature atum 2024 gannaaw yeneen kàddu yi nga ne tegaat na ko ci moo di buñ demee yàlla danañ xam ne njiital Pastef Ousmane Sonko yemul ak ñoom lépp lu ñu indi ngir lor njiital Pastef Ousmane Sonko suñu borom du ci ànd ak ñoom waaye nag li nga xamante ci ne moom la sis bi def duñu ko ci félicité waaye nag danañ ko ci wax ne ko li nga def kat day droit maanaam du ñëw di lu félicité ndax li nga def dafa nekk yoon Ousmane Sonko gisuñu dara loo xam ne daa tere mu nekk candidature atum 2024 kàddu yi Maître Ciré door moom la Angie avocat di njiital au Ousmane Sonko yooyu kàddu la dal di yëkkati ngir di naqalu li nga xam ne moom la état bu Sénégal naroon a tekk njiital Pastef Ousmane Sonko Buzz Media TV